الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ginnaaw ba ñu sant yàlla subhanahu wa taala ñu ngi koy dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko muslu ci suñuy bon bonu bakkat ak suñuy ñawte fu jëf di seede seede dëgg di seede ne yàlla subhanahu wa taala képp ku mu tànn jubal la yow yaay ci jub wante képp ku mu seetaan ci mante ba nga sànku yow amatul kenn ku la mën a jubal di seede seede dëgg ne amul ku ñu war a jaamu jaamu di tegu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala wante di wax ne Muhammad yal na ko yàlla doon na xewal ak mucc yonent yàlla ak ndawam la te jubóo fi dulul li nga xam ne moom la ko yàlla yonoon comme risaala jotoon na ko xeet ba mu sëkk te jubóo fi dulul bàyyi na xeetam ci yoon bu xam ne guddeem ak bëccëgam ñoom ñoo yem kenn du ci turéelu ki nga xam ne moom moo na moo sànk ginnaaw loolu mbokk yi comme niñ ko faral di defee nga xam ne sa quinzaine dañoo am programme bu xam ne dañuy woo kenn si jàngalekat islam mu ñëw jàngal ñu benn masala si suñu wàllu diine tey jii ñu ngi woo suñu oustaz di koy wax Seydou yi mu war ñoo jàngal benn masala bu jëm ci suñu wàllu diine kon dañ koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala dëgëral ko bu li nga xam ne moom la fi bëgg a leeral mu leer naññi dugg suñu nopp yi jaay suñu biir xol yi ba ñu mun ko jëfee kon oustaz dañuy wax tafaddal mashkura
alhamdulilahi rabbil alamin nahmaduhu wa nastainuhu wa nastahdiih ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وعد أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala sunu jotaay bi yàlla na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu ñoo ngi jéem a fàttali sunu bopp di leen fàttali ci tomb bi nga xam ne moom la ma mbokk mi joxoon mooy usulul iman fil kitaabi wa sunna mooy cosaanu ngëm yàlla tabaraka wa taala fondation bi ni ko yàlla wàccee ci téeréem yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal koy jàngalee ci sunnaam mu nekk tomb boo xam ne moom dëgg-dëgg moom mooy tomb su fekkoon ne nit ñi tomb bi leer na ci ñoom kon duñu am jafe-jafe ci sunu dund ndax dañuy xam li tax borom bi tabaraka wa taala binduñu indiñu fii ci kaw suuf si fa inna min xikmati xalq al jinn wal ins hiya ibadatu llahi waxdahu kama qaal xereñ gi nekk ci bind bi yàlla bind nit ak ginne wàccee leen ci kaw suuf li ci nekk li mu ëmb mooy kennal yàlla tabaraka wa taala jaamu ko kennal ko moom yàlla lida kaana tawxid wal aqida alsaxiha loolu moo tax mbokk yi kennal yàlla googu ak am pas-pas bu wér ci moom yàlla te ñu jëlee ko ci benn manba al asli ci benn rootuwaay te mooy alkitab wa sunna loolu mooy gaaya li taxqiq tilka al ibada doomu aadama yi bokk benn pas-pas bokk benn jubluwaay bokk benn ngëm boo xam ne balluwaay ba fañ ko jëlee ak source ya mooy téere yàlla ak sunna loolu mooy jubluwaayu islaam tey li tax jullit yi bëri mat ay milliards ci kaw suuf waaye milliard boobu tekkiwul dara mooy ñàkk a bokk pas-pas boobu su fekkoon ne ñun ñëppee ñoo bokk benn pas-pas pas-pas boobu ñoo bokk fu ñu ko jëlee kon du ñu wuute loolu pour mu yomb ci seen déggin xool leen jamono yonent alayhi salaatu wasalaam ak génération ba ca topp ak ba ca toppaat amuñu woon wuute comme ñun rayante wuñu woon comme ñun tàqalikoo wuñu woon lu ko waral mooy ñoo bokk benn jubluwaay ñoo bokk fu ñu jëlee ñoom ñëpp moo tax benn rek ñun nag li ñu yàlla natoo mooy ñu nekk ay jullit waaye bokk ñu ngëm su ñuy taxawee naan dafa weex ñee taxaw naan dafa ñuul su ñuy taxawee ne baaxul ñee taxaw ne baax na su ñuy taxawee ne dafa araam ñi taxaw ne dafa dagan moo tax ñu am problème boo xamante ne bu ñu yàlla dimbaliwul ci kàttanam duñ ci génn ba yowmal qiyaamati ixwatal iman al gaaya li taxqiqi tilka al ibada jubluwaay pour suñu jaamu yàlla mën a baax mën a jub ngëm gi rek mooy baax su ngëm gi baaxee rek lépp baax yenente alayhi salaatu wasalaam moo tax bi ko yàlla yónnee li mu njëkk a def mooy defar ngëm gi loola tax boroom xam-xam bu ñu lay jàngal dañ laan la jullit yi nekkoon màkka gàddaay ànd ak yenent amul naafiq ñépp a jub naafiq amul ci waa màkk almuhaajirun amul munaafiq ana naafiq yi mooy waa ansaar lenn ci ñoom mooy waa Médine lu tax ndax formation bi amoon màkk amul Médine Médine moom yonente dana cëpp ibaada yi commencé wàcc sharia bi commencé wàcc mu tàmbalee jàngale amaa fële aqiida bi lañ doon saxal looloo tax même da ngay dégg borom xam-xam yi naan la saar yi wàcc màkk ak yi wàcc Médine duñu benn saar yi wàcc màkk yépp ci pas-pas laay wax ak yowmal qiyaam dee dekki saar yi wàcc Medine ñoo ñëw di jàngale julli woor joxe azaka dem màkka yu demee noonu moo tax ñee màkka dañu ne keng parce que ngëm gi moo dëgër ixwatal iman fahiya al asas li imarati hadha al kawn jaamu yàlla mooy fondement pour dundal àdduna pour dundal suuf su suuf dundee doomu aadama moo koy dundal doomu aadama lan moo koy dundal mooy jaamu yàlla jaamu yàlla googu fan lay tegu pour baax mooy ci iman loolu tax yonent alayhi salaatu wasalaam toog fukki at ak ñett ci biir màkk lan lay jàngale mooy al iman yenn saa yi mu ne leen jaddidu imanakum qaalu ya rasul allah kayfa nujaddidu imanana qaala qulu la ilaha illa allah waaye waaye bee salaat leen seen ngëm sahaaba yi ne ko naka la ñuy bee salaatee sunu ngëm mu ne dee leen wax la ilaha illa allah waaye yemul ci loolu sax day xëy di contrôler imaan yi léeg-léeg mu xëy ne leen kayfa asbaxtum naka ngeen xëye tey jàkkaarloo naag saabu tudd xaaris ne ko kayfa asbaxta ya xaaris mu ne ko asbaxtu muminan billah nu xëye tey mu ne dama xëy di gëm yàlla mu ne ko xoolal li ngay wax lépp lu doomu aadama wax war na kaa mën a leeral yow luy wane ne dangaa gëm yàlla mu ne ko talaqtu dunia wa staqbaltu l axira bàyyi naa àdduna jublu alaxira wa sumtu nahaari wa qumtu layaali su bëccëgee damay woor bu guddee may naafila du ma nelaw mu ne ma nekk ci loolu nekk ci loolu ba su ma xëyee xool asamaan day mel ne maa ngi jàkkaarloog arshu rahman su ma xoolee ndeyjoor day mel ne maa ngi gis aljanna ñu ubbi ko gaa yi di xéewlu su ma xoolee sama càmmoñ day mel ne maa ngi gis waa safara ñu leen di mbugal yeneen bi daan ne ra'ayta faltazim gis nga yoon wi téyal mu dëgër waaw foofu mooy yoon bi julli munul baax koor munul baax aj munul baax benn jaamu yàlla ci kaw suuf munul baax su doomu aadama ngëmam dëgërul su ngëmam baaxul looloo tax mbokk yi ñu war a defaraat suñu pas-pas problème yi ñu am suñu suñu dund yëpp du leen lu dul ngëm gu nasax ngëm gu dëgguwul di gëmëntu loolu mooy sunu problème gëmëntu nga gis kuy tricher ci jaamu yàlla ni ñuy tricher ci ay étude ci jàng ci lu nekk ci liggéey ci noonu la ñuy tricher ci ngëm mooy ngëmëntu ngëm gu demul fenn loolu nag sahabatul kiram yàlla daf leen cee muccaloonu c'est parce que ki leen doon jàngal daf leen won ne dund gi amul tricher damay liir sànq thème bi ma war a def léegi ci tibis waa ji di wax ne yonent alayhi salaatu salaam bi ko yàlla yónnee li mu njëkk a gëm mooy dama war a changer adduna bi fara changer adduna bi pour ma changer loolu adduna bi foog ma am ay nit foog ma am ay rijaal ay góor su ma jaaree wàll wi ñu jaar wàll wee yonent am nit ñooñu mais préparé leen ba ñu ne keng mu tas leen waaye ban préparé leen préparé mooy ci imaan bi waaw ñun lan moo tax tey mënuñu changer adduna bi mënuñu changer sax pays bu ñu dëkk wala quartier bu ñu dëkk wala kër gu ñu dëkk pourquoi pas ab su nit bu def vingt ans ci benn kër mënul changer kër gi parce que sa ngëm dëggu parce que da ngay tricher munoo changer sa jabar munoo changer say doom munoo changer daa kenn munoo am xarit boo takkool sax nga changer ko c'est parce que sa ngëm dëgguwul du dëgg ngëm gi dëggoo courant la buy maasaati courant ku ko laal fu mu nekk lu la lu mu lay def te lañ maas parce que dafa fees daal yow ku la laal du la maas koo nekkal du la maas ku la jege doo ko du la maas c'est parce que dëgguwoo ma dañu war a xoolaat suñu bopp ixwaan yi benn jubluwaay lañ am ci kaw suuf mooy al ibaada benn jubluwaay boobu jubluwaay boobu pour mu baax mooy fokk ngëm gi baax ngëm mooy tax julli baax mooy tax yeneen yi ci tegu yëpp baax lépp su fekkee amul ngëm jàngeen fa waylun lil musallin waa jaa ngi julli mais bu dee dee dem safara jàngeen ñuy julli yàlla mu ne du loolu mooy mbir mi laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al bir man amana billah wal yawmil axir gis nga yàlla mu ne ngëm nekkul ci jublu penku nekkul ci jublu sow ngëm mi ngi ci imaan nga defar pas-pas bi loolu moo tax wa bi faqdiha yakunu fasaduhu wa xaraabu wa ixtilaatu kama qala jalla wa ala ci ñàkk pas-pas ci la yàqute di amee ci la ràppal di amee ci la jaxasoo di amee yàlla mu ne law kaana fihima aliha illa allah la fasadata fa subhanallahi rabbul arsh amma yasifun gis nga ñaari yàlla bu amoon ci kaw asamaan yàlla mu ne de suuf si dund gi day yàqu asamaan day yàqu loolu loo ciy dégg mooy ñaari bëgg-bëgg bu nekkee ci sa xol bëgg yàlla bëgg leneen du dem law kaana fihima aliha la fasadata bu fekkoon ne ñaar rek la day yàqu kenn rek kenn lenn benn bëgg-bëgg benn ngëm mooy nekk ci sa dënn sa lépp baax amaa ñaar mënul nekk bëgg yàlla bëgg leneen mënuñu ko boole ci xol bëgg yàlla bëgg keneen mënul nekk kon yàqute day am ni yàqute amee tey ci kaw suuf lu tax allahu alladi xalaqa sab'a samawat wa min al ardi mislahunna yatanazzalu al amru baynahunna li taalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma wa ila gayri zalika min al ayat yaqulu al mawla borom bi nee na man subhanahu wa taala allazi maay ki nga xam ne xalaqa sab'a samawaat maa tàggat bind juróom-ñaari asamaan man dong lañ war a gëm asamaan yi nit ñi toll tey boo xoolee kër gii rek da nga daan si ki ko doon defar bu doon bu ko gën a gudd la nga ni cay kii te demul fenn xoola ki bind asamaan yi juróom-ñaar kenn bindu dimbaliw ko mu defar lu mel noonu wa min al ard mislahunna mu defar suuf lu mel noonu kenn dimbaliw ko mu ne looloo tax ngeen war a xam ne li taalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir soo xoolee yàlla bind bim bind asamaan suuf jant weer bind lépp loolu loo ci jëlee mooy nga xam yow ne yàlla mii borom kàttan la yàlla mii ku màgg la yàlla mi ku xereñ la li taalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir pour ngeen xam ne yàlla moom lépp la attan amul lu munul lépp la man soo amee ku mel noonu nag buur bu mel noonu sàkk la wàccee la ci kaw suuf day ruslu ci yow luñ la wax nga ni munta nekk tey boo nee nañu fexe quartier bi ñëpp nekk ay sunnit nga dégg benn waaye bu am dooful iman ne la munta nekk munta nekk kon yow gëmoo ne anna allah ala kulli shay'in qadir génn nga ci aaya ba bu yàgg yàlla bi mu la wonee kattanam ak màggaayam ak dayoom wala ne moom mën na lépp daf laa wax ne kol bul waxati dara munul nekk lu fi nekk mooy al al juhud nga génne sa effort nag nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gëmee ne dafa war a changer àdduna mu woote ñu ñëw ñëw mu ne leen dañu war a changer àdduna programme boobu laa indi mooy damay changer àdduna ñooñu wax waxuñu ko ne munul nekk kan ci sahaaba yi moo ko ne munul nekk aboubacar mooy pay keroog bi aboubacar waxee ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yonent bi tàllal loxo ndey joorom aboubacar tàllal ñoom ñaar ñu jàppante aboubacar siggi xool yonent bi ne ko lan moo ma war mu ne ko li ma war ci mbir mi moo la war maanaam li ma war a def yow loolu nga war a def aboubacar daal di génn premier jour mu indi ousmane ibnu affan deuxième jour mu indi ousmane ibnu mazoun troisième jour mu indi arqam ibnu abil arqam quatrième jour mu indi bilal noonu la ko toppee bis bu nekk bis bu nekk mu indil yonent bi kenn bis bu nekk mu indil yonent bi kenn ñun ñu toog fii ci saisi bi ñu nekkee sunnit ak léegi ñaata nit lañ indi ku nekk fii toog bi nga nekkee sunnit ak léegi ñaata nit nga indi ci sunna ñaata nit nga indi ci diine bi ah c'est parce que ñun dañoo gëm ne munta nekk yàlla nag moom dane woon yonent bi li taalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir pour ngeen xam ne yàlla lépp la mën dafa ruslu nga yor programme yonent bi nga am ngëm gu tol ne ngëm yàlla yàlla moom lépp mën lépp programme boobu defoo ci sa yitte ixwatal iman yàlla yemul ci wa anna allah ala kulli shay'in qadir waaye wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilma yàlla nee na lépp xam-xam laa ko peege ñaar maa man lépp waaye lépp dama ko peeg ci lan ci xam-xam wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay lan moo des ilma maanaa gis ngeen aaya yi ak hadis yonent bi alayhi salatu wasalaam moo defaroon góor ñooñu yonent alayhi salatu wasalaam doon préparé pour ñu changer adduna bi waaye ci ban changement ginnaaw ba leen yonent bi defaree ci iman ci ngëm ba gisatuñu kenn gisatuñu lenn xoola amdu keroog ba mu demee ci kanam rustum biñ ko invité muy ñëw dañu ko garder dañoo garder rustum ba weñ yi dinaaw ñemewu ñoo tag ci kawam ñu génne arme bu ñu munta am arme bu ñu am rek génne nañ ko keroog pour bu am ru ñëwee ne tiit comme day joxe julli ñu information bu demee mu ne leen ñii mënuñu xeex ak ñoom ndax gis naa arme boo xam ne lu nekk ñu def ko façon tapis bu nekk ñu lal ko pour tiital waa ji façon arme bu nekk façon warukaay génne ba génne ay ñay defaral waa ji seize or mbax ne or ñu solal ko ko mbax na bi dafa ngande ci or ba dañ ko sampal benn buum benn weñ benn or boo xam weñ boo xam ne seen or boo xam ne moo ko téye ci kaw bu toogee ñu wàcc ko ba mu tiim ci bopp bi mu daan ne këcc ndax bopp bi mënu ko téye ndax diisaay or bi loolu yëpp pour lan la pour tiital amr bi mu ñëwee ak waruwaayam ak yëreem yu gàtt yi ak jaaseem ak sikkimam ak kaalaam ñi ne mbaam la war ñi ne fas la war mu jaaral waruwaay wi ci tapis rouge yi gars yi ne ko lii nag mu ne yéena ma woo woowu ma leen su ngeen buggul ma ñibbi ñu ne ko waaw mu ñëw fekk ñu tegal ko 16 mu daal di toog ci suuf ñu ne lii nag doo toog fi mu ne lii fu àdduna la loolu indiwuma fi wax leen lii li ma indi ma dem sama yoon rustum benn laaj la ko laaj lan moo leen jële Medina lu leen génne ngeen tasaaroo ci kaw suuf lan la mu ne ko ji naa lu nixrujakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad ñun dañoo tasaaroo ci kaw suuf pour génne nit ñi waxoon naa leen yonent bi dafa ñëw pour lan ci changement ñun dañoo tasaaroo ci kaw suuf pour génne nit ñi ci jaamu gi ñuy jaamu nit ñi yóbbu leen ñu jaamu yàlla جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جحيم المعصية إلى جنة التعب ñëw nañ pour génne leen ci mooy yàlla gu metti gi ngeen nekke yóbbu leen ci aljanna ju yaatu jee waaye mbokk yi ñëw nañ pour génne leen ila diqi dunya ci àdduna bu xat bi ngeen nekk xam ngeen lan mooy dund xat àdduna bu xat mooy sa programme dund yëpp nekk lu dul naka laay lekk naka laay def ba lekk naka laay def ba naan naka laay def ba am kër naka laay def ba takk jabar naka laay def ba tukki naka laay def ba am oto mbokk yi loolu dund bu xat la loolu dund coono la te loolu moo ñu sonal li nuxrijikam min diiqi dunya ñëw nañ pour génne leen ci programme dund bii ngeen yor mu xat fu ngeen ñu jëmee ila siatil axira yóbbu leen ci àllaaxira gu yaatu gële ndax foofu dara du manqué foofu dara du xat foofu lépp a noo lépp a nooy lépp a yaatu lépp a neex rustum bàyyi amri muy wax mu koy laaj muy tontu mu koy laaj muy tontu ba mu ne ko waaw léegi bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag li nga wax yëpp ak seen génn bi ngeen génn ne da ngeen a bëgg a changer adduna bi su ngeen ñu woowee ñu bañ nag léegi amr daal dugal loxo bi ci mbaru jaasi ji mu daal di koy xëcc comme mbar mi weñ la woon xam ngeen mbar mooy fi jaasi fi ñu koy dugal mbubam bi fi ñu koy denc comme weñ la woon bi mu ko xëccee mu ne kar daal def son boobu mu téye jaasi ji ne ko kii mooy nekk suñu diggante ak yéen xoola waa jooju nga xam ne benn nit ci population Faris bi yëpp nu ñu toll benn nit ci kanamu buur bi mu tontu tontu bi Rustum dafa tiit ba ne ko yow xanaa yow yaay amiru gaa yi mu ne ko yow boo gisoon Omar dootoo dooy la hawla wala quwwata est-ce que yow mës nga gis Seydina Ali xoola yonent bi noonu la meloon di waxuma yonent waaye yonent ñi mu defaroon rek ku leen dégg da ngay tiit Omar ibnul Xataab tere na nelaw waa Ruum moo tax bu ñu bëggee defaru bu ñu bëggee changer àdduna bi sunu pas-pas yi la ñuy defar sunu ngëm gi la ñuy defar ngëm gi nag soo ko waxee souvent ku gàtt xel ku mel ni man ne ah man de am naa iman maa ngi julli léegi laa jóge jàkka ja bi xiyaamul layli naa waaye lëndi sax dama wooroon dama wóor sidi ñu fan loolu mooy iman la la la la loolu du ngëm loolu jaamu yàlla la ngëm gi mooy lépp lu mu mun a doon ci kaw suuf lu dul yàlla mu la déranger ne la yàlla yitteel ne la programme yàlla yitteel li yàlla bëgg ba tax mu defar àddina bi na nekk say loxo sa programme dund yëpp mooy loolu nu mu nekkee man lool rek waaye añ bu suur dem jàkk ñëw naan ataaya ñu noddaat tàkkusaan nga dem loolu dafa yomb dafa yomb trop te pourtant li ñu yàgg di wax rek te gëm ko mooy sahabatul kiram mbokk yi dañu nekkoon amakinul muqaddas loolu yomboon leen topp nag te wallahi munoon nañ koo def nekk makkatal mukarram su julli jotee nga dem jël ndoxum zam-zam jàppe ko fan ngay jullee ci kaaba gi kaaba gi xam ngeen boo ci jullee ñaar raaka ñaata nga yam damay laajte ku julli ci kaaba gi ñaari rakk ñaata rakk ngay am comme fii damaa laajte de ñaari rakk kaaba gi ñaata la tollol ah ah cinq mille cent mille li nga wax wér na wóolu nga ko wala da nga tatone wóolu nga ko ok akkan xoolal loolu ni mu bëree li mu wax ñaari rakk ci biir kaaba gi kon boo fa jullee tisbaar nag boo fa toogee fukki at di julli rek farata yi di naafila kon looy am xoolul ni mu neexee soo paree nga laal xajaratul aswad xeer bi nga xam ne aljanna la jógee nga xam ne bakkaaru nit ñi ñoo ko ñuulal boo ko laalee da sa dañuy baal sa bakkaar xoolal loolu yëpp ni mu réyee sahaaba yi bàyyi fa loolu soo paree nga dem maqaama ibrahima julli ñaar raak xool loolu ni mu neexee sahaaba yi bàyyi fa loolu yëpp tasaaroo ci àdduna bi soo leen di fu ngeen jëm ñu ne dañuy génn ji nit ñi ci réer di leen indi ci leer est-ce que iman moo tax iman moo tax ñu bàyyi lii lépp yàlla may leen bàyyi kër yi bàyyi doom yi bàyyi jabar yi bàyyi alal yi makk ni mu selle ni mu tedde xoolal ña madina ñooy ndey wax maa bayna qabri wa minbari rawdatun min riyadil janna soo demee foofu buñ jullee ba pare ba ubbi ziyaaraat di ngay gis nit ñi di daw mel ne dañ leen wax ne ay milliards ñoo fi nekk kaa leen ngir xëccoo di njëkkante place boobu yonent bi ne diggante sama minbar bi ak sama néeg bi may bi ma daan jógee di julli di jiite diggante bi rawdatun min riyaadil janna waaye gars yi bàyyi fa loolu lépp tasaaroo ci kaw suuf lu ko waral mooy imaan bi imaan bi moo dëgër yonent bi ne leen acca génn ji leen nit ñi imaan bi fexe leen nit ñi ji am ko ñu daal di départ bàyyi fa loolu daal tasaaroo ci kaw suuf ixwatal imaan kon wala ma kaana xayru mumkin lil uqul an tastaqilla bi maarifati tafasil zalika baasa allahu rusulahu wa anzala kutubahu bi ñu xamante ne ngëm googu la yàlla soxla ngëm gi bu baaxee jaamu yàlla bi baax loolu munta nekk xel munu koo nangu kenn munu koo comprendre looloo tax yàlla daal di tànn yonent yi yónni leen pour ñu ñëw yàlla wàcce téere yi pour ñëw li idahi wa bayani wa tafasili linnas hatta yaqumu bi ibadatillahi ala ilmin wa basira xam nga yàlla yónni yonent yi 124 000 prophètes yàlla yónni leen ci kaw suuf pour ñu xam ñoom doomu aadama yooyu lan moo tax yàlla tàggat leen wàcc leen ci kaw suuf ngëm googu jaamu yàlla googu munta nekk kenn mun ko comprendre lu dul nga jaar ci yoonu yonent yi parce que ñoom ñoo ñëw di ko jàngale nu ñuy gëmee yàlla nan la ñuy jaamoo yàlla loolu moo tax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñaari jumla yooyu lu ñuy tekki mooy yàlla la ñuy jaamu muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla kenn ku nekk ci ñun su fekkee da ngaa bëgg a jaamu yàlla te yonent bi wanu la nu ñuy jaamoo yàlla da ngay réer loolu la laa ilaha illallah muhammad rasulullah di tekki mooy yàlla la ñuy jaamu muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla da moo tax boo demee ci julli ci alquran doo fa fekk tisbaar ñeenti ràkka la abadan doo fekk tàkkusaan ñeenti ràkka la doo fekk timis ñett doo fekk gee ñeent doo fekk suba ñaar yàlla dana julli leen rek kan moo ñëw wax julli gu ci nekk ñaata ràkka la kan moo ko jàngale sunna yonent bi muhammad alayhi salatu salaam moo ko jàngale moo tax usulul iman li koy jàngale mooy fil kitaabi wa sunna yonent bi mooy wan naka la ñuy gëmee xoolal ngëm yi ni ñu bare am na ñu gëm jant am na ñu gëm weer am na ñu gëm géej am na ñu gëm ñu gëm garab am na ñu gëm nit am na ñu gëm jinne ñii ñëpp seen ngëm ngëm la waaye alquran ak sunna ñooy ñëw di la wan ban ngëm moo baax ci ngëm yi mooy ki gëm yàlla kese ngëmum jaxasewu ci dara allazina amanu walam walam walam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun gis nga yàlla mu mu ne allazina amanu ñi gëm te jaxasewuñu walam yalbisu imanahum jaxasewuñu seen ngëm bi zulm mooy bi shirk wal kufr seen ngëm-ngëm yàlla kese la yàlla nee na ëllëg àllaaxira ñii ñoo nekk ci sécurité ñii ñoo ñu jub ci àddina bi ñii ñoo am jàmm àllaaxira ñii ñoo dugg aljanna léegi nag ngëm goo xam ne dafa jaxasoo ak lépp jaxasoo ak bànneexi bakkan jaxasoo ak àdduna jaxasoo ak lu nekk ngëm googu borom day sonal boppam parce que moom ci boppam changé gul soo changé wul munoo changé kenn wallahi alazim sahabatul kiram ñi yonent bi yaroon dañoo changé ba da nga gis ñu mën a bàyyi jabar moo tax nga gis ñu nangu ñu rey leen keroog bañ jàppee ala yaasir di leen rey yeew sumaya yeew yaasir yeew doom jàmmaar yonent bi mu leen rombee lan la leen wax munoon na leen bàyyi leen gars yi wala mu dem jëli saa waaye dane sabran ala yaasir fa inna mawidukumul janna ne ñu nangu ñu rey leen ci loolu c'est parce que ngëm gi moo moo fi sax ñu jàpp bilaal yeew ko di ko dóor mu nangu ñu dóor ko c'est parce que ngëm gi moo fi nekk keroog bi gàddaay jotee yonent bi ne jóg leen lan moo tax xoolal nga gis ko am kër daa di bàyyi kër xool leen kër tey kër kër kër njëriñ la ci dund wala du njëriñ damay laajte de kër tey ci Sénégal ku ko fi am noppalu nga wala noppalu woo noppalu nga ku ko amul yaa ngi ci coono bu rëy xoolal ñooñu loolu lañ bàyyi nga gis ku bàyyi kër nga gis ku bàyyi jabar nga gis ku bàyyi doom nga gis ku bàyyi ay tool xoolal rek yor àll bu rëy ay tool yi tàndarma lu nekk nekk ci yonent bi ne nañ leen dem fu ñu jëm dañuy gàddaay yàlla moo ne nañ bàyyi dëkk bi dem Médine allahu akbar xoolal Aboubacar ni mu amee woon alal ni mu amee woon commerce xoolal këram gim bàyyi mu daal di départ topp yonent bi benn mbubu moo ko topp mbubu mi mu sol benn mbubu loolu lu loo ciy dégg muy ngëm gee dëgër ñun tey fii boo ne benn boo ne woon benn waay dañu war a gàddaay mu ne lu ñuy fuñ jëm nga ne ko dañuy dem misaal Mauritanie misaal ay bu ñu demee foofu ci ay carton mu ne lan yee seex bi ñee dañoo gàddaay moo tax yàlla bu mu leen di wax ci alxuraan di leen tagg lan la yàlla wax ñii man yàlla dama kontaan ci ñoom lu tax parce que dañoo jënd seen allaxira àdduna wa min annas man yashri nafsuhu ibtigaa mardatillah am na ci nit ñi ñoo xam dañoo jaay seen bopp ndax jënd ko kontante yàlla est ce que ngëm ngee dëgër xoola suhayb bi ruumi muy gàddaay alal yu bari la yor mu gas ba mu xóot digg néeg daal di dugal alal ci départ yéeféeri màkk topp ko mu ne leen lan la ñu ne ko alal ji lañ soxla mu ne mu ngi sama digg néeg dem leen ngeen jël mu daal ngeen bàyyi ma man ma départ wala su dul loolu ngeen ñëw rey ma di ngeen ma rey waaye balaa ngeen may daaneel dinaa rey ñu bëri ci yéen gars yi ne ko ñun alal ji lañ soxla mu ne mu ngi sama digg néeg xoolal ki nangu bàyyi alal xam ngeen lu tax lii lépp ku nangu bàyyi alal bàyyi lépp lu tax mooy dañoo am imaan ngëm gi moo dëgër mbokk jullit yi loolu moo tax ñu mun a bàyyi lu nekk ñu dem Médine yonent bi départ formation wala muy formé waat ñii nga gis ku ñeme taxaw daal ne am naa ñeenti jabar nañ dem nga xool koo bëgg ma fase nga takk am naa ay kër nañ dem nga xool kër goo bëgg boo waxee ma jox la am naa ay tool nañ dem nga joxoñ kër goo tool boo bëgg ma jox la kan mooy wax loolu fii ci ñun tey loolu moo tax ma wax ne pour pour ñu dund pour ñu jëriñ suñu diine pour ñu jëriñ suñu société pour ñu nekk ay góori l'islam il faut ñu defar sunu ngëm googu ixwatal iman kon xel munta nangu jaamu yàlla gi baax lu dul ñu déglu yonent yooyu ñëw leeralal ñu teg te yonent yooyu fan la ñuy teg mooy ala basira wa ala ususin waadix wa daaimin qawim ngëm mooy fondement gu ne keng keroog ba ko yonent bi defee sahaaba yi ba pare dafa pare xalaatatul ab sahaaba bu génn ci lislaam xalaatatul loolu xalaatatul ab sahaaba bu murtad xalaatatul ab sahaaba bu ko trahir xalaatu ko moo tax keroog ba ñu nekkee ñetti téeméer rek fukk ak ñett ñu jàkkaarloog junni keroog badr ndeysaan ci suba rek maa ngi koy wax sama waa kër ndax dañu jàpp seenu arab yi rek ñu fekk seen benn seen buy teg le messager allahu akbar sahabatul kiram ñuy xeex badr xoolal ñetti téeméer ak fukk ak ñett jàkkaarloog junni loolu lan la keroog bi ñëwee Uhud ñoo ñoo gën a bëri Hamza mu ne laa yujibu nii maa fi amaami man li yéemu ma ne li nekk sama kanam li ma yéem rek mooy est-ce que yéen ñi nekk sama ginnaaw am ngeen ngëm buy wane ne mën ngeen dékku ñi mbokk yi saxaaba yi rawewuñu nit ñi lu dul ngëm te ngëm loolu la yonent bi doon wax sahaaba yi li leen aboubacar rawe mooy sëy un waqara fi qalbi te loolu du leen lu dul iman kon bi isnillahi tabaraka wa taala ixwaan yi jullit fu mu toll dafa war a yeesalaan nga moom ndax moom am na iman wala amul iman ndax moom ngëmam gii ci dënnam bi yoon njoxul yaafuusul wala trichewul li tax sunu dund tey am problème mooy li ma waxoon sànq mooy gëmantu gi ñuy gëmantu te loolu baaxul dafay yàq sa dund da ngay dee nga defe ne yaa ngi ci dara fekk nekkoo ci dara fa nu taabi rusulullahi ala tabliig wa tawaalihi fi bayaanihi kama qaala subhanahu wa taala fokk su fekkee dañoo bëgg a defar sunu ngëm ñoo am ay modèle yu ñuy tànn teg leen sunu kanam di leen roy loolu moo tax yonent bi pour yàlla defar ko mu baax pour mu am iman googu yàlla da koo joxoñ ay nit ci alquran ne ko ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi ñii laa baaxal soo buggee baax royal ñii di tax tey yahud yi ak nooni yàlla yi di bañ ñun jullit ñi ñu jàng alquran ñun jullit ñi ñu gëm alquran lu tax mooy alquran mooy téere boo xam ne daf lay jàngal imaan bu sax dàkk wan la ñi amoon imaan démb tiituñu woon kenn wala lenn wala firaw na yeggoon na ci doole ne ana rabbukumul aala yeggoon na ci doole boo loolu yeggoon na ci doole ne maa alimtu lakum min ilahin xayri xamaluma leen benn yàlla bu dul man waaye xoolal benn nit la ko yàlla booleel bu tudd Muusa amul benn arme amul dara moog rakkam ak benn yat ñoom ñett yatu Moussa Moussa ak rakk ji Firawna yor lan Égypte ak li ko wër ñëpp ànd ak moom dëgg-dëgg Moussa waroon naa tiit keroog bi mu jàkkaarloog Firawna ci yow mu ziina ñuy seet kan moo nekk ci dëgg Firawna peuple bi yëpp ànd ak moom tey bokk na ci li ñu tardeel mooy ñun dañuy xool ay mbooloo fekk mbooloo amul importance waaw mbooloo amul njëriñ léeg-léeg nga gis ku ne xam ngeen ne li ngeen nekk bu doon dëgg la nit ñi way fekk si leen beneen bi nga gis yenn saa yi ku ne ah ñun de jaru sax ñuy wax ndax nit ñi mënoo leen a changé ah loolu dooful iman la yonent bi ko yàlla yónnee mu ne laa ilaha illallah su doon xalaat waa màkk mu ne ah man mu ma taxaw fi kenn du ma topp nu muy def waaye déedéet gis nga ku ànd ak yàlla yor programme am doo faale ku ñëw doo doo doo weddi ku ñëwul ndax yow programme mu yàlla ngay eggali keroog bi Moussa taxawee ak rakkam ñoom ñaar cundung nit ñi di yuuxu jabarkat yi ne Firawna est-ce que bu ñu gañee ñun lu ñuy am mu ne wa innakum la min al muqarrabin dinaa leen def ay ministre di ngeen bokk ci ñi ma jege amul problème ñu ne Moussa sànnil li nga yor wala ñun ñu sànni Moussa ne leen sànni leen bi ñu sànnee Moussa yëg ci intérieur am tiitaange lan la ko yàlla wax laa taxaf bu ragal innaka antal aala yow yaay gañe yaay nekk ci kaw bul tiit waxuma la peuple bi waxuma la njabarkat yi waxuma la njabar gi pa njabarkat yi indi normalement waroon na tiit mais keroog bi ko yàlla ne laa taxaf innaka antal aala Moussa yëgalutu ko yaramam dafa taxaw rek di déglu yàlla yàlla na ko sànni li nekk sa loxo ndeyjoor mu sànni yàlla def liggéeyam njabarkat yi ñu jële woon ci kanam ci chaque seconde yi la ñu dóor seeni jëj suuf daan ne amanna bi rabbi Moussa wa Haarun ah wala léegi léegi léegi léegi njabarkat yi seen dund gi yëpp ay bandi lañu woon seen dund gi yëpp ay caaxaankat lañu woon seen dund gi yëpp ay saay-saay lañu woon waaye xoolal léegi ci 30 secondes am nañu imaan bi ñu amee imaan dama leen di jàngal fi rek di leen wan ne di di leen fàttali lan la imaan di def ci ku ko am léegi léegi lañ am imaan ñu sujjoot daan ne amanna bi rabbi Musa wa Haarun ñu sëggi Firawna ne ah innahu la kabirukum allazi allamakum sihra kii mooy patron bi leen jàngal njabar danaa leen rey danaa leen daggate dagg seen loxo ndeyjoor seen tànk càmmoñ xoolal Firawna li mu tëkkoo tëkk yi ni mu mettee dinaa leen yeew ba dugal leen ci garabu tàndarma yi xam nga ñëw li ñu ko tontu faqdi ma anta qaad innama taqdi haadihi alxayaatu dunia pourtant ñoom léegi léegi lañ ñëw tey lañ ñëw tey lañ ñëw tey tey julliwuñu wooruñu defuñu benn ibaadaat waaye raw nañu ñiñ fi fekk ba nanguñu leen di rey te léegi-léegi ñoo ngi wax Firawna bu ñu gàñee loo ñuy def mu ne ministre xoola pouvoir u ministre munoon nañoo jël loolu de xoola pouvoir u ministre innakum la min al muqarrabin dam leen di fal ngeen jege ma xoola ku tey ku jege woon Macky Sall allahu akbar bu ngeen fi doon recevoir ku jege Macky Sall lu muy indi Njaga Njaay buy ñëw tata lay dugg super lay dugg moto la yéeg engin saret du ngeen ma tontu ah suy ñëw lu mu yéeg allahu akbar oto bu ñuul kook tent vert yi allahu akbar innakum la min al muqarrabin xoolal jege nguur ni mu neexee waaye terewul ñoom gis nañ lu dàq nguur mooy al iman ñu daal di sujjóot Firawna ne leen dinaa dagg seen loxo ndeyjoor seen tànk càmmoñ dinaa dagg loxo càmmoñ tànku ndeyjoor danaa leen yeew ci garabu tàndarma yi ba ngeen dee di ngeen xam ne maa kii ngeen topp duñu benn yaay ne ko defal loo mën a def adduna rek nga mën alaxira ñun ak yow ñoo yem te sax ñoo ngi lay yëgal ne sunu yaram yi nga mënal dara mais sunu ruu mënoo ci pës balaa ngay egg ci sunu imaan ñu génn adduna parce que imaan a ngi noonu ay ayyuhal ahbab ku am imaan da ngay changé adduna soo amee imaan mënoo changé sa kër xoolaata sa bopp soo amee imaan munoo changé sa jawar xoolaata sa bopp soo amee imaan munoo changé sa doom xoolaata sa bopp amoo imaan munul nekk jullit ngëmam dafa war a mel ni dugub dugub xam ngeen dugub dugub boo koy jëlee ci kër gi di ko yóbbu tool fu mu jaar yëpp fi sareet bi jaar yëpp dañuy xam ne dugub jaar na fi suñ ko yóbbee tool yi wàcce ko ku ñëw xam ne fii wàcc nañ fi dugub buñ ko jëlee waate foofu di ko indi fu mu jaar ñu xam ne dugub wàcc na fi nuñ koy xamee dafay ruus dugub kenn mënu ko téye bu yeboo nga def ko ci ay saag loo neex nga defay day wàcc rek moom parce que loolu mooy islam loolu mooy iman iman fu mu dem rek imam abdul hamid kiski nee na iman yajaalul al ajaiba mumkina ngëm day def lu munul nekk mu nekk boo mu ne boo amee ngëm boo tànkee ci géej gi naan day saf suukar du saf xorom lu munul nekk ngëm daf koy def mu nekk loolu moo tax saxaaba yi mus mus ñu wax ne munul nekk xoolal ñi ñu daan xeexal waaye lan moo leen doon yóbbu iman wa imma nuqatilunakum bi iman iman lan doon yóbbu moo tax lépp yomb ci ñoom boo amee iman lépp day yomb waaye bu iman yoon joxee lépp day day yàqu ixwatal iman iman boobu nag dafa am ay keno am ay keno toll ci juróom benn iman ci xol lay nekk islam cër yi ñooy liggéeyal yàlla ihsaan mooy loolu xol bi gëm cër yi di ko liggéey mu rafet loolu moom mooy maratibu diin suñ lay jàngal ibtidaa yi dañ lay wax maratibu diin salaas ñu ne la al iman al ihs al islam al ihsaan ñu ne la al iman mooy nekk ci xol kenn xamu ko nag gëm nga wala gëmoo yàlla moo ko xam rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura mën nga am jabar ngeen bokkulal xamoo ndax am na iman mën nga am borom kër ngeen bokk nekk xamoo ndax am nga iman yàlla rek moo xam ndax yow am nga huwa a'lamu biman ittaqa yàlla moo xam ku ragal yàlla ku iman boobu nekk ci moom mu ragal yàlla yàlla moo ko xam war a mu ne fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi ma nit taqa moo tax c'est très dangereux nga gis ni romb la nga naan kii gëmul yàlla parce que duggoo ci xolam wala kii pas-pasam wérul parce que duggoo ci xolam yàlla nee na li ci xol bi maa ko xam yow mii ci sa bopp di wax ne da ngaa am ngëm yàlla nee na man maa ko xam te bu leen setal seen bopp chaque jour da nga war a tuumaal sa bopp est-ce que man sama ngëm gi dëgër na waaye nga ne man maa leen ëpp iman yéen ñëpp maa leen ëpp iman loolu jullit du ko def fala tuzakku anfusakum bu leen setal seen bopp bu leen wax ne yéen yéen a gën ñeneen yéen a gën waa réew mi yéen a gën ñee ay bidaamaan lañ ñee ay shirk lañ ñee jahannama lañ jëm bu leen wax loolu alla nee na rabbukum aalamu bima fi nufusikum beneen mooy bu fekkente ne yéen da ngeen nekk ci iman ñee nekk ci shirk dem leen ngeen génne ji leen bu leen toog di leen wax rek yéen da ngeen nekk shirk da ngeen nekk shirk wala da ngeen nekk ci gëm ñee nekk ci bidaa dem leen ngeen génne ji leen ndax wa kazalika kuntum min qabl fa manna allahu aleykum nee ngeen meloon de ndax judduwu leen ci lii judduwu leen ci ah yéen ñëpp da ngeen doon dem ay gàmmu ay ay ay ay ay màggal ay bidaa di di góorgóorlu te yàlla def leen ngeen nekk ay sunnit wa kazalika kuntum min qabl fa manna allahu aleykum nii yàlla baaxee leen dem leen ngeen baaxee ñeneen ñi ngeen indi leen imaan boobu nekk sa xol juróom benn xaaj la ko yàlla xaaj la ko boroom xam-xam yi xaaj bu ci benn manqué sa ngëm matul sa ngëm wérul ci genn manqué benn bu ci benn manqué sa ngëm wérul ngëm yàlla nit du mën a mat lu dul mu gëm juróom benn yëpp gëm yàlla ak li ci aju dañ koy jàng gëm malaaka yi li ci aju gëm yonent yi gëm téere yi gëm allaaxira gëm dogal bi neex bi naqari mu nekk juróom benn loolu xol bi kese la cër yi bokkuñ ci xol bi rek moo koy liggéey islam nekk juróomi mbir cër yi ñoo koy liggéey cër yi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah lan moo koy def lan mooy def sahaada yi cër yi làmmiñ bi xol bi yépp iqaami sala lan moo koy def mos nga gis benn waaye julli jot mu ne dem leen maa ngi julli man dégg leen daa tëdd ci kaw lal bi ñu ne jógal julli mu ne maa ngi julli instant yi ngay may gis ni yoo xam maa ngi maa ngi julli loolu xanaa diine bu bees la foog cëri julli léppay ànd di xaw mi salaam itaay zaka lu koy def joxe azak lan moo koy def cër yi hajjul bayt lan moo koy def sawmu ramadan lan moo koy def moo tax ñu ne la iman xol la al islam cër yi la al ihsan ñëw mooy lii ngay def ci ñaar yëpp na rafet na rafet al ihsan an taabudullah an taabudallah ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak fa innahu yaraak ixwaani juróom benn mbir yi mooy iman juróom yi mooy islam benn bi mooy ihsaan mooy li ngay def na rafet jaamu yàlla gi ngay def na rafet dund gi ngay dund ak nit ñi na rafet hatta sooy wax wa quulu linnaasi xusnan hatta booy fayonte hal jazaau l ihsan illa al ihsan na rafet lépp looy def dafay rafet hatta sax bu dee fayu yàlla nee na na rafet même booy rendi mu ne na rafet rafet yonent bi nee na bu ngeen di rey rey leen mu rafet sahaaba yi ne daas paaka ba mu ñëw ngay rendi dara diggéen nu muy rafetee mu ne paaka bi na ñëw ngeen ñàdd xar mi ngeen teel ko rey mu teel a noppul loolu mooy rafet waaye affaire sauvage yi am léegi ah nga xam ne ci lépp ñàkk ngëm yàlla daf ci feeñ loolu li ko waral mooy ñàkk am iman iman boobu nag yazdaad wa yanqus day yokk day wàññeeku lan mooy yokk ngëm jaamu yàlla lan moo koy wàññi mooy ñàkk jaamu yàlla saa yoo gisee ab jaamu yàlla mu sawar di jaamu yàlla guddi ak bëccëg suñ nee nag jaamu yàlla léeg-léeg doomu aadama ne julli parce que ñun philosophie bi ñu yaree mooy soo ne jaamu yàlla rek benn waay li tax sunu diine mun ta dem soo ne jaamu yàlla rek benn waay ne man julli gi na léegi daa jóge jàkk ja tàkkusaan kii naan ma julli jaamu moo yàlla parce que ñun suñu jaamu yàlla lépp ci julli lañ ko tënk xamuñu ne bu ñuy lekk sax jaamu yàlla la suñuy naan jaamu yàlla la léegi léegi maa ngi jàngal xale yi balaa may ñëw léegi léegi léegi léegi léegi léegi programme suñu dars samedi 2 heures 3 2 heures 4 heures léegi léegi maa ngi leen koy jàngal benn xadis alhamdulilahi allazi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur wala rek xadis boobu nu mu réer buñ ko jàngale ab julit moom mu jàpp ne man ma yow alhamdulilah maa leen na sóor fër jàpp même askar yi da ngay gis sax koo xam ne ndeysaan askar yi moom bu koy def wax naa ko rek tur wax naa ko fekk loolu taxul woon yoon te bi jàngale xoola bi nga yeewoo alhamdulilahi lazi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi xoola bi nga yeewoo ñu yella rek li nga li ko def xippi sa bët sa xel dem ci yàlla yaa ñaati nit yéen a tëddandoo woon ñii yeewu feebar ñii yeewu ñu leen di yóbbu naar armeele ñii yeewuñu ci guddi gi lañ ubbi kër yi fëgg kër yi yóbbu leen ar morgue ba ñaari semaine yi passé ñaar yëpp yee nañ ma 3 heures du matin may jëli néew ci kër di ko yóbbu ci morgue ñaari semaine yi passé yeew nañ ma 3 heures du matin may yeewu di jëli caabi morgue di ubbi jàkk ji di ci dugal néew dem tëddiwaat xoolal yow nga yeewu ñu bëri yeewu ñenn ñi bi ñu yeewu hôpital lañ jubal direct ñenn ñi bi ñu yeewu seen kër lañ nekk mais dañu feebar ñenn ñi mënuñu dara yow allahu subhanahu wa taala allahu subhanahu wa taala dimbali la ndeysaan yow nga yeewu lu tax doo sant sa borom moo tax nga war a wax alhamdulillah kan alladi ahyaana ki nga xam ne moo ma dekkil baadama amaatana ginnaaw ba ma reyee ci guddi gi nga sant ko c'est parce que moo delloo ruugi ci yow alhamdulilahi lazi radda alayya ruuhi maa ngi sant yàlla mi ma delloo sama ruu ba pare wa azina li bi zikrihi mu sant ma ci man man yàlla ma tudd ko delloo ko njukkal ma sant ko xéewal gu rëy gi ma defal mooy dekkilaat ma ci biir jaam ñi loolu mooy philosophie boo yeewoo nga tudd yàlla ba pare beneen bi mooy bi nga yeewoo rek sa làmmiñ bi lan la njëkk a def mooy tudd yàlla balaa ngay tudd kenn même soxna si nga fanaanool même way jur bi nga bokkal kër bi nga yeewoo balaa ngay wax kenn dara sa làmmiñ bi kan la njëkk a fàttaliku mooy allah subhanahu wa taala loolu mooy iman iman boobu nag saa yoo gisee nit mu am ko xamal ne jaamu yàllaam moo yokk yasdaadu wa yanqus lan moo koy yokk mooy ibaada ku la dàq jaamu yàlla julli yi ku la ko gën a respecté ku la dàq naafila guddi ku la dàq woor ayaamul biid yowmul isnayn yowmul xamis ku la ëpp lu muy jàng alquran ci bis bi ku la ëpp lu muy def azkaaru sabaax wal masa wallahi kooku moo la ëpp iman te kooku moo lay jiitu yowmal qiyamati lu tax ni mu la rawee ci àdduna ci jaamu yàlla noonu la lay rawee àllaaxira te kenn ci ñun mun taraw keneen lu dul nga ëpp ko imaan imaan moo tax kee di yeewu 5 heures kii di yeewu 4 heures du matin kii di yeewu 4 heures kii di yeewu 2 heures kii di woor weeru koor ba weeru koor kii di woor ayaamul biit di woor lundi di woor jeudi kii di julli këram kii di dem jàkk lan moo tax imaan moo tax ayyuhal ahbaar kon nañu góorgóorlu ci lépp loo xam ne day yokk sunu imaan waaye lépp loo xam ne imaan bi bu yokkeew nga fexe mu sax fa benn sahaaba dafa xool yonent bi rek commencé jooy yi ko lan la mu ne ko man bu ma toogee ak yow rek damay am ngëm te bu ma demee rek kër ga rek sama soxna yeeg sama doom yi rek lépp lu ma jëlee woon fi daat dem yonent bi ne ko da ngeen cee saxul naa ni ngay mel nii ci man soo fi jógee boo demee kër ga fexeel loolu mu sax fa bañ a génn mu ne soo ci saxee léegi ngay nuyu malaaka yi waa ji ne ko amoo mu ne waaw waa ji départ day jekki-jekki daan leen nuyu leen malaaka yi ñu ngi nii di leen di leen nuyu parce que da cee sax waaw nit day sax ci ngëm fexe ngëm gi di yokk waaye bu mu wàññeeku waaye koo xam ne ndeysaan ni ngay def nii yenn saa yi nga ni nii sax ba egg ci suuf yaa gars yi ñaanal leen waaye temps yi sama imaan bi moo góor quoi loolu musiba la yal leen yàlla dimbali yal leen yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal leen yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko incha allah maa ngi gàttal foofu waxtaan bi di ñaan yàlla tabaraka wa taala li ci njuumte yal leen ko yàlla jéggal li ci njub yal leen ci yàlla boole bindal ñu ko tiyaaba ñun ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ay question